am na ñoo xamante ni jot nañu wax ak moom le 18 novembre Dóor wala Saliou euh, bu dee kenn ngi fi rek euh, nga ñëw dimbali ñu si téléphone bi xam naa ni euh, suñu beneen invité bi moom moo moom moo war a agsi léegi ñu fàttali ko que ni moom xam naa ni am na retard bu bare nag parce que fi mu xoo jógoo moo xawoon sori mais à part Abakara amaan nañu itam Lamine Sidibé mu war ñu rejoindre ci ci ci plateau moom itam nekk classe su Aba nekk itam classe su kii di Fulbert Samb comme ni ñu ko waxee comme li ma la wax rek yow yan nouvelle nga mujjee ci moom wala yan nouvelle lañ mujjee jox ci que lii di arrivé. moom comme ni ma ko waxee léegi ñu mujji wax ak moom wax nañoo ak moom le 18 novembre 2022 jour bi ñu koy porté disparu. 18 novembre. 18 novembre 2022 vendredi 18 novembre 2022 ñu mujjee wax ak moom jour bi ñu naan disparaître euh, na. disparaître na jour boobu am na ñu mujjee wax ak ñoom. am na ñu wax ak moom mais domaine boobu tamit. doon na domaine bu nga xamante ni comme man du man maa wax ak moom <laughs> am na ñu wax ak moom le 18 novembre 2022. ba le vingt cinq la ñu gis corps bi. le vingt cinq. waaw mhm. ñu enterré ko le vingt neuf trois jours après. ñu enterré ko le vingt neuf. Mhm. mais le 18 boobu. ñu jëlee ko fële ca martyr euh, de Luganda. yóbbu ko fële nga xam ni moom mooy Saint-Lazare j'étais là-bas maa ngi fi woon. Mhm. mu nekkoon jour bu triste quand mhm. ak euh, ay mbokkam vraiment yow euh, j'étais là-bas en tant que journaliste mhm. mais xam nga tamit nit nit kese nga mën a doon. même bi may reporter sax y des gens yoo xam ni après dañuy sentir que nii des fois parce que boo dikkee nga gis seen i mbokk ñu gis seen frère bi ni ci anam yi mu demee te ñu war ko yóbbu suuli te benn. na enquête bu boo xamante ni si ne en tout cas wax na leen ni diw bi li mu moxolal xam nga tamit saa kenn côté da danga koy xool ci sa bopp mais jour boobu j'étais là-bas euh, ñu yóbbu ko tristement en tout cas dem yóbbu ko foofu la nga xam ni euh, moom moo di ci Saint-Lazare euh, ni kii le 29 boobu nga wax en tout cas kon mm-hmm. le 22 jour bi ñu koy porté yi am na ñu wax ak ñoom. le 18 le 18. Mm-hmm. le 22 lañu. le cinq lañ ko porté. maa ngi jaaxal lan la ñu ne nañ koor bi. d'accord waaw. ñenn ci say ay proches ñoom ñoo la wax lu ni mel maanaam ñi ñi waxtaan ak ñoom ñenn ci say ay classe lañu n'est-ce pas. am na ñoo xamante ni samay classe lañ waxtaan nañoo ak moom le 18 boobu le vendredi 18 novembre 2022 ñoo ñu mujjee nañu wax ak Fulbert comprendre nga. Mm-hmm. am na ñu wax ak moom mais man waxuma ak moom te lamit loolu man suñu biir classe yi. Mm-hmm. man maa leen woo di laaj. ba am ci ay information yooyu xam naa ñi nga xamante ni ñoo mujj wax ak moom. moom Fulbert moom Fulbert xam naa ñu mujj wax ak moom kooku nag man la. yow la mais ñooy ndax doonul loo xam ne dama koy divulguer <laughs> mais xam naa ni am na ñu wax ak moom le 18 boobu. a mhm. midi. a 12h. à 12h ndax ay jege ñaaleem lañ ay classe lañu. non classe am rek jege ñaaleem la. waaw classe am rek jege ñaaleem la ndax classe moo dafa gën sax doomu ndey. Mhm. classe am rek jege ñaalem la ndax koo xamante ni yéen defandoo lépp mhm. bokkandoo temps bi ngeen di passé sax bi ngeen di passé ko passé ak doo ko passé ak sax sa famille mhm. kon kooku tey ji xam na ci yow la nga xamante ni sax amaana say mbokk xamuñu ko ci yow comprendre nga koo xamante ni tey fu ngeen di jëm moom moomay ànd pour ngeen di defandoo yéen a koy defandoo li ñuy dugg Dakar Bango li ñuy sol ci kaw ba ci suuf ñoo koy ñuroo kon on était tous des jumeaux muy ñi ne bokkoon ci contingent 98 bi yëpp ñun ñëpp on était des jumeaux mm-hmm. on était doomu ndey on était des xarit et tout comprendre nga mm-hmm. kon lu metti kii rek day metti ka ca des lu waxu kii rek xooli kuri ka ca des effectivement waaw mm-hmm. am ñoo xam ne nag wax nañoo moom waaw am ñoo xam wax nañoo moom la le 18 euh, le vendredi 18 euh, novembre mais est-ce que xam ngeen euh, ci ci ñan la mujjee toogal avant ko lii di arrivé ñu mujjee toogal par exemple parce que loolu tamit mënu ci ñàkk parce que tey mën nañu toog nekk ay gaañ ñu toog fii nii ma jógee fii euh, beneen ndogal arrivé mais ce que am nga idée ci ñan la mujjee toogal ba tey xaw ma ñan la mujjee toogal xaw ma ñan la mujjee toogal franchement parler xaw ma ñan la mujjee toogal <laughs> ndax comme ni ma la wax mm-hmm. ba tey man sama wàllu bopp maa ngi gëstu yaa ngi gëstu maa ngi gëstu <laughs> avant gara <laughs> militaire ga dafa la koy nangul waaw ñu tamit ay journaliste lañ. non <laughs> yoon la yoon la <laughs> yoon la yoon ah, la mais xam nga am na loo xamante ni rek. Uh-huh. boo fa duggee rek après da ngay. teg sa tànk buntu kër jàmbur. Mm-hmm. sans autorisation boobaa da nga koy tooñ. <laughs> mais y a des yoo xam ni. waaw tey euh, sénégalais yi mën na mën nañ ci parce que les sénégalais aussi dañu am droit à l' yi mën nañ jot. na ci domaine yoo xam ne du suñu domaine. Mm-hmm. mënuñu ci dugg mais am na ci y a des yoo xam ni tey. par exemple mais xam nga ñi ñi ko ŋànk. Mm-hmm. tey buñ ko toppee. pour mu leer. Mm-hmm. topp ko ba ci biir. mën a enquête biñ ci war a def. Mm-hmm. après Sénégalais yëpp dinañu xam dinañ ne kat ah le cas de Fulbert kat ça s'est passé comme sa comme ça. du boobaa Sénégalais xam ndax li nga yàqamti nii man moom mm-hmm. laa yàqamti moom la sama moroom mi nekk ci mbedd bi yàqamti ah. effectivement jaaykatu gerte caaf bi toog fële xam Fulbert. taximaan bi ma andi. loolu rek la yàqamti. <laughs> mu daal loxo nar naa dem gémmiñ de no loxo nar naa dar gémmiñ billaahi wallaahi taalaahi loolu bis buñ ci duggee avant non te dañ ci war a dugg non non ala kulli xaal moom gëm naa ni euh, justice bi fi nekk nii gëm mhm. naa ni daan ci dugg mais sénégalais xam naa ni buñ ci duggee xam nga sawaay euh, avant moom nanguwul wax xam naa buñ ci duggee sénégalais seen loxo dana dar gémmiñ de daan ci dégg loo xam ni euh, peut-être mën nañ ko woon sax bañ a foog man la tey jii boo taxawoon woote rassemblement Fulbert Samb. Mhm. gëm naa ni foo ko mënti defee àdduna yëpp ñoo lay wuyu mhm. ndax kaaw Fulbert même ñu xamul Fulbert sax daf leen a metti mhm. même ñu xamul Fulbert daf leen a metti franchement parler te yow xam nga loolu mooy wax tey jii boo woote woon rassemblement pour Fulbert Samb rek ne pour Fulbert àdduna ñëppay ñëw jàppale ko ñëppay ñëw jàppale ko ndax ñëpp euh, bëgg leer waaw ah, ñëpp ñu ngi koy ñu ngi koy soutenir ah. parce que li mu wax rek il n' est pas n' a servi sa nation. il s' est porté euh, volontaire wu. porté volontaire mhm. d' abord. boobu njëkk a mhm. nga porté wu volontaire pour servir sa nation c' nga porté volontaire ak li la mën a fekk yëpp. ak loolu ci mën a fekk yëpp. tey bu ne woon tey si champ de bataille la daanoo ko ren rek dinañ ni c' était prévu. Mhm. mais dafa yomb trop noyaat. dafa yomb c'est tellement facile ça s'entend mal à l'oreille des sénégalais. dafa lab ci ku daan foo ci géej gi di napp. waaw te dëkk ci île. Mhm. Saliou bu ñu mënee tegal vidéo yooyu sax parce que am na ay vidéo yoo xam ni. jox nañu la ko. Euh, ci ko xam ni danaan foo ci tefes gi di di di napp dëkk ci île ñu wax leen ni dafa dafa lab loolu daal <laughs> fi ne nii ngeen mënta dégg. non mun amul kenn ku ko mën a dégg ci sénégalais yi amul. amul benn sénégalais boo xamante ni loolu leer na sa nopp mën nga ko dégg amul. moo tax sénégalais yëpp ñëpp bëgg kaawu Fulbert Sambou mu daal di leer plus particulièrement nous ces classes de guerre waaw. yéen dañ dañ ndax parce que tamit des fois du ñàkk bon <laughs> am na joo xam ne moom xam naa ni comme li nga wax rek doo ci doo ci doo ci doo ci doo ci dugg mais quand même am ngeen ay ay suspect ay soupçons yoo xam ni am am am ngeen ko ci am ngeen ko ci yëfi non suspecté ndax leen amu leen ay ay ñenn ñoo xam ne xëy na seen xel xaw na ñaaw njort. non fu mu toll nii. Mhm. man par ma voix. Mhm. li ma mën a wax mooy régime bi fi jógee. Mhm. ñoo sànq ak suñu classe Fulbert Sambou. muy régime mu président Macky Sall président Macky Sall. bu ñuy wax tey bu may duut baaraam. duma ma baaraam kenn ku dul Macky Sall. Macky Sall laay duut baaraam. da nga jàpp ni luy njiit njaag ci yëf yi moom la. mais Macky Sall le chef suprême des armées l' armée. Mhm. il était le chef kon bu ñuy duut baaraam moom la ñuy njëkk a duut baaraam moom laa njëkk a duut baaraam Macky moom laa naan moom moom moom man tey su ma doon wax dama naan Macky Sall mooy sama premier suspect ndax il est le chef suprême des il était le keneen ak keneen kan na ci gannaaw nag lijjantiwuma loolu mais su may wax Macky Sall laay joxoñ Mm-hmm. moom ci boppam moom ci boppam laay joxoñ mm-hmm. man Babacar Diouf Abakara mm-hmm. su may joxoñ Macky Sall laay joxoñ en première ndax il était le chef suprême des armées le militaire de l'armée sénégalaise président Macky Sall ci moment boobu mu def fi ay sorties yu bari yoo xam ni nous en tant que en tout cas nous les journalistes on s'attendait à ce que mu tudd tey turu Fulbert Sambou bi ba ci DJ Badji mais euh, dañuy gis saa saa sune bu daan génne sax pratiquement presque daf leen di zappé yow euh, loolu nax nga ko daan jàngate waaw loolu moom du man rek ñëpp la metti hmm. moo tax tey ñun gis nañ Macky Sall 2022 ba léegi bi fi Fulbert jógee. Hmm. ba léegi loo dégg Macky Sall ba ni mu fiy jógee waxul ci kaawu Fulbert. Hmm. kon tey bu ñu duut baaraamu tuuma. Mhm. Macky Sall la ñuy njëkk a duut baaraamu tuuma. ba tey yëkkati ci kàddu wax ci. ba tey yëg kan dégguloo ko. man dégguma ko li ma la wax rek. gisuñu ko dégguñu ko. waaw mu mu mu mu wax ci. waaw dégg gisuñu ko dégguñu ko mu wax ci. kon tey bu ñuy duut baaraamu il était le chef suprême. il était chef suprême des, des armées. président de la république est le chef suprême des armées Macky Sall était le chef suprême des armées le premier militaire sénégalais. donc kaaw Fulbert bu mu amee ki ci waroon a njëkk a addu hmm. mooy le président Macky Sall d'abord le président Macky Sall moo ci waroon a njëkk a addu mais ñun ñëpp gis nañu tey jii ba bi nga xamante ne tey nguuru Macky Sall jóge Macky Sall ba ni mu fi jógee hmm. kenn déggul mu wax ci kaaw Fulbert kenn déggul mu wax ci kaaw Didier Badji mu addu ci lan lan nan nga ko jàppee yow daf leen a sous-estimé daf leen a zappé wala daf leen euh, dafa am comme ni nga ko waxee sànq rek xam nga sànq wax nañu ko ni est-ce jàppoo ni aspect politique euh, daf ci laxasu ndax loolu tey en tant que militaire doo sentir que ni kii est que tey sa kilifa bi daf leen a sous-estimé wala. mais daf leen a sous-estimé en tant que njiitu réew. nga njabootee armée bi yëpp. Mm-hmm. doon le chef suprême des armées. Mm-hmm. tey da nga war a tëddee njaaxaandaay tey sa gétt bu fa benn xar manqué wala benn bëy manqué fa. Hmm. war nga ko wëri. Hmm. voilà waroo ko wëri. effectivement. waaw kon moom tey ko wala nga yabal xale yi. ñu dem wëri ko léegi kon géttam. Hmm. benn kenn manqué na ci biir gétt gi. muy Fulbert Sambou. mais war nañ jóg wëri ko buñ demee ba gis ko ñu ni kat ah diw mi kat kañu seeti woon kat amaana. da nii lañ ko fekkee ci anam bi mhm. war na ni taxaw léegi taxaw leen ci ñu xool lan moo ko rey ñu ñu gëstu ay mbiram ñu gëstu ay mbiram xam ne lan moo fi jëlee bakkanam mhm. mais l'ex président Macky Sall kenn mësu ko dégg mu àddu ci kaaw Fulbert Sambou mhm. ak Didier Badji ak Didier Badji way paix à leurs âmes même les internautes sax ñi ngi réclamer wala na ñuy waxaale ci kaaw ki nga xam ni moom mooy aussi Didier Badji Euh, parce que moom itam ci euh, mi ci ci ci ci disparition ci disparition bi la bokk moom aussi mi noonu dégg nañu baax a baax euh, doléance bi ñoom ñi nga xam ni ñu ngi bàyyi xel en attendant mooy nuyu suñu beneen invité bi Lamine Sidibé dab nañu ci plateau bi ñu jaajëfal rek quelques internautes yi nga xam ni jamono ji ñu ngi seetaan di ñu bàyyi xel ku ci mel ne Galsen Guelpo Samba Sall ñu ngi lay jaajëfal baax a baax Pastef askan wi ñu ngi lay nuyu Fanta Fati ñu ngi lay nuyu bu baax a baax Alsane Camara ñu ngi koy nuyu Malick ngoom euh, ñi lay jaajëfal bu euh, baax a baax caporal officiel xam naa kii seen mbokk la mm-hmm. <laughs> mi ñu bàyyi xel moom itam bu baax a baax euh, nee na kii xam naa ko bu baax amul lu muy tiit maa ko xam ki nga xam ne ki xam na la Abakara xam na la bu baax a baax ñu nuyu aussi ki nga xam ne mooy Ibrahima Ba David Jarga Bonang ñu ngi koy nuyu bu baax a baax ñu ngi nuyu Smart View waa ki moom turam bi xam naa ni xaw na ñaa xaw na compliqué tuuti du moins euh, en tout cas ñoom ils sont très très nombreux El Hadj Boy ci commentaire di ñu bàyyi xel mais aussi euh, di wax seen gis-gis Aliou ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax euh, Bekkaay ñoom ñëpp ñu leen di jaajëfal Jubeeru Sow ils sont très nombreux ci commentaire yi di ñu bàyyi xel bu baax a baax mais aussi di apprécier Aba en attendant ñu nuyu Lamine Sidibé bi nga xam ne mi ñu soogay dap ci retard bi nga xam ne am na ko. parce que fi mu doon jógee aussi tamit moom moo xaw a sooy moom itam bokk ci classe ki nga xam ni mooy euh, kii di Fulbert samb ñi ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyu ak euh, ñi nga xam ne ñu ngi seetaan actuellement. Oh, salaamaaleykum euh, maa ngi nuyu sénégalais yëpp képp ñëpp gis ku toog di sànn Sunugal 24 ñu ngi lay nuyu di leen ziar baax a baax di ziar sama classe yi nga xam ne tamit ñu ngi ci kii bi réseau bi di